oui xam nga en fait dafa am benn contexte bu fi amoon contexte bi moo doon lan mooy que ni Macky Sall je veux même plus parler de lui parce que pour man maintenant c'est le passé. Mm-hmm. mais dafa amoon ambition def troisième mandat. loolu je crois que ce n'est pas un secret de polichinelle amoon nañu ci ay doute ah mais après malheureusement xam nga heureusement euh, dafa dafa dafa dafa dafa nem musu ko xalaat sax parce que am na code d'honneur boo xam ne tey jii moom ci la ci la ci la ci mais boo xoolee ni élection yi demee après. déjà le choix du, de son remplaçant. Mm -hmm. c'était un problème tànnul dauphin. parce que bu dee yow sa nga xam ne sa second mandat la second mooy dernier mhm. mandat. mënoon mhm. nga am sa dauphin. bàyyi ko mu Sénégalais miin ko mu mun a nekk candidat en 2024 mais c'est-à-dire que loolu yëpp dara amu ci mhm. c'est-à-dire que c'était ça son ambition mais bu mu demee ba il a fallu se heurter au mur il a compris que waruloon mun a forcer mbir mi maintenant nag comme moom du bokk dafa am ku mu bëggoon moo taxoon nag ñun on avait estimé déjà li ma doon wax noonu li ma doon wax ci Yewwi Askan Wi te mujjul antu te yàlla xam na ne bu ma ci doon waxtaan boobu Ousmane Sonko sa nekku fa woon il était à sa dans sa mairie à Ziguinchor. Mm-hmm. mais on a vu après les gens se précipiter di déclarer seen candidature ñu def ay congrès d'investiture mais moi je je me suis dit que. Euh, il faut loo gisoon ba ne Ousmane Sonko la parce que à part les autres leaders. Euh, n'avaient pas cette même vision xëy na bëggoon nañu exister politiquement xëy na bëggoon nañu natt seen bopp mais les résultats de l'élection ont montré carrément que ñoom à côté de de de de de Sonko il ne il rien du tout. oui xam nga ce n'est pas la personne de Ousmane Sonko qui est importée. Mm-hmm. dans un combat le combat c'était le changement de régime le mieux placé de nous tous c'était Ousmane Sonko. Mm-hmm. wooroon leeroon nañu ba ñu ne ko yow yaay nekk tête de Mm-hmm. il ne voulait pas être tête de liste. Il voulait pas être sur la liste nationale. Mm-hmm. Il avait dit que lui, il allait partir sur la liste de Ziguinchor. N'est-ce pas? Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on avait dit les trois quarts des candidats, des leaders waroon nañ dem ci euh, département yi. parce que département mooy fal national. moom il était prêt à aller sur la liste ci liste nationale. voilà mais voilà finalement tout le monde. et tout le monde voilà tout le <laughs> comme ñun leeroon nañ ne Ousmane Sonko mooy nekkoon le mieux placé. Mm-hmm. bu nekkoon ci course euh, face dañuy naan c'était le meilleur cheval. Ouais. mais on continue avec lui. Mm-hmm. donc pour man si on voulait abréger la souffrance des Sénégalais jaruloon muy am fukki junni. candidat ci benn bokk yaakaar benn candidat la ñu am ñun ñëpp ñu mànkoo mm-hmm. mu nekk suñu candidat te bu boobaa Macky du ko faagaagal parce que saura qu'il na va pas créer le vide autour de lui et à partir de ce euh, ak euh, élan boobu les Sénégalais allaient tout de suite trancher et du de sax soxla sax pratiquement. mais au bout du course il a été écarté. mais si si loolu moo créé Lacoste. Ah, oui Lacoste c'était pour Ousmane Sonko. loolu moo créé Lacoste. d'accord xam nga quand ils ont arrêté Ousmane Sonko injustement d'ailleurs. Mhm. bi ñu ko arrêté dañoo gaawantu tas parti c'était mhm. son appareil son instrument politique. Mhm. ñu tas ko c'est-à-dire c'était une stratégie de démobilisation. bu ñu tasee Pastef. fan la Ousmane Sonko amee euh, yaakaar Yewwi Askan Wi. Mhm. ñu bundu xataal Yewwi Askan Wi. Mhm. le même jour quand on a placé Ousmane Sonko sous mandat de dépôt retranché dans le siège de Yewwi Askan Wi fi ñu doon waxtaanee. Mhm. fa la ñu commandant de euh, gendarmerie fekk. génnee ñu par force mënu militaire yi. ne duñ fa def réunion. donc LACOS c'était un instrument au service de Ousmane Sonko. oui pour lui permettre d'exister politiquement. voilà avec un appareil wala benn su mu mën a sukkandiku. maa ngi ñëw ok xam nga loolu bi mu amee donc. Pastef n'existe plus Yewwi Askan Wi n'avait pas la possibilité de faire des d'activités mhm. ñu génnee Ousmane Sonko injustement ci liste yi mhm. liste euh, électorale yi mu dugal recours au niveau de Ziguinchor bu mu dugalee recours au niveau de Ziguinchor ñu arrêté datu tribunal bi ñu ne le 12 octobre mhm. man la woon ak Dame ñu voyagé par voie terrestre mooy mën a bu amoon na chance am billet d'avion parce que ñu bu ñu laajee ñooñu billet d'avion amul jeex na. Mhm. alors que Dieu sait qu'il y avait des places qui étaient disponibles. ah oui qu'on n'avait pas donné. Mhm. Maïmouna Bousso quand elle est arrivée à Ziguinchor elle nous pourtant je ne sais pas pourquoi vous par, avion n'était pas plein. il y avait au moins une dizaine de places qui étaient libres. waaw boobu qu'est-ce qui se passait à Ziguinchor mooy procès bi. procès bi ak Sabassi Faye bi. ak Sabassi Faye bi ok quand on bi ñu seetaanee procès euh, procès bi ba ñu ne Ousmane kenn waru ko woon génne ci liste yi te ñaan ne bi ñaan pour ñu delluwaat ko ci liste yi. bi ñu dellu siwaatee boobu temps nu on avait déjà mis en place une un cadre ñu bëggoon créer la coalition Sonko président ok moom bi mu ko yëgee d'ailleurs moom moo yonnee ci ñun pour ñu ñëw euh, créer parce que xamoon nañu suñu diggante mhm. bu ñu ko bëggee lancé mu ne ñu il nous déconseille dafa bëggoon ñu xaar tuuti rek parce que dafa bañ bu ñu ko yëkkatee rek gars yi ñëw commencé dal suñu kaw ñu jógee Ziguinchor ñu am victoire bu toll noonu man ma woo may mën a busoo woo Dame ma ne ko nag wax jot na. Mhm. nañu def conférence de presse ñu wax sénégalais lan lañ jëlee Ziguinchor. Mhm. biñ ci waxtaanee ba pare daam booj ne ma mais loolu buñ koy def il faut ñu def ko ci turu structure te amuñu coalition. Sonko président amul ci laa toog xalaat ma ne ñun ay allié Ousmane Sonko lañu maanaam mhm. dañoo ànd ak Ousmane Sonko. te ay leader lañu. mu tuddee ko LACOS. leader allié du candidat Ousmane Sonko parce que. à travers l'ACOS dama bëggoon jëmmal. donc l'ACOS est né après les ennuis Sonko. après le procès de Ziguinchor. Mm-hmm. octobre. Mm-hmm. donc pour man il faudrait que ñu jëmmal candidature Ousmane Sonko. jëmmal candidature Ousmane Sonko moom mooy que ne ñun ñi nga xam ne ay leaders lañu ñun ñoo taxaw pour ànd ak Ousmane Sonko ci candidature am moom mooy leader allié du candidat Ousmane Sonko. donc candidat la. Mm-hmm. bi ñu defee loolu nag après bon ñu nekkoon ci Sonko président ñëw ñëpp ñoo bokk si je me rappelle d'ailleurs bi ñu génnee tour bi. Euh, le président Abibsi daf ma woo mu ne mais kenn moo créé lii c'est génial. oui oui c'est bien inspiré. waaw mu ne la mot Lacoste. voilà Sénégalais yi ko ci benn marque de vêtements. voilà mais aussi ça sonne bien et voilà. Mm-hmm. donc après ñu lancé gis nga suñu première euh, conférence de presse bi vous avez suivi. oui amoon na fu ñu ko waroon def. police ñëw foofu ñu ne duñ ko fa def parce que lu tax ñu ne photo Ousmane la lañ ci def te ñu amuñu autorisation pour def ko. Mm. un endroit privé. <laughs> finalement on s'est retranché dans le siège de euh, de frappe fa ñu lancé. lakos donc la stratégie c'était quoi Pastef nekkatu fi Yewwi Askan Wi mënul réunir mhm. donc kenn du fi yëkkati kenn da ci Ousmane Sonko il fallait contourner contournement bi moom mooy créer lakos ah, parce que qu'ils ne s'attendaient pas à ça mhm. donc mhm. ils ont été pris de court et on a continué à fonctionner dans lakos bi ñu créé lakos nag on s'est retrouvé chez le doyen Habib Sy ñu jox ma coordination bi ma koy coordonner donc ay nit di ñëw di di adhérer donc Euh, Dame ak Maimouna qui étaient les initiateurs am na alliés. oui pratiquement après. tout le groupe qui était là qui devait former Sonko président est ok ok ak également ñëw nañu rejoindre ñu. d'accord donc on était autour d'une quarantaine ou mais comment avez-vous vécu.